salaamaaleykum chers téléspectateurs de la chaîne Max Vision ñu leen di bëgg di leen kontaane eh, di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi ak kilifa cosaan yi eh, di ñaan yàlla rek yàlla yàlla def ci Sénégal jàmm eh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci lalu hôpital yi yàlla fëgg seen bopp ñu nekk ci prison yi aussi yàlla génne leen fa ba mu ñu dugaat ci ci société bi di am mbégte ak contentement ak suñu sponsor bu bu baax bi muy complexe la Dija Enco nekk ba Sicap Jëppal 74 30 ànd c'est aussi euh, Rijal Couture euh, mu nekk Sandaga centre commercial El Malick cantine numéro 60 numéro téléphone bi di 77 528 40 82 tey nag euh, sunu sponsor leader di di di CDA indi ñu loo xam ne vraiment plat bu yanji bi di ay chausson ànd si ak sa sama naataango Alaaji Jimbori waaye nag Sénégal tey dama leen indil ki nga xam ni jafe woon na am jafe woon na gis jafe woon na seet waaye ma dem ba dëkkam euh, jëli ko indi ko fii tey si sunu plateau waxtaan na pour tey mu mën a waxtaan ak sénégalais yi ah mu nekk saltige de mbaaw euh, jóge ba ca dëkk boobu dëkk bu sell boobu indi ko fii tey tey présenté ko téléspectateurs yi nga xam ne ñooñu seetaan à travers la chaîne Max Vision Alaaji Jimbori tey ah, indi naa la gan waaw ah, Moustapha maa ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay comme ni ma koy defee rek bala maa xuus si bi moom xam nga ni man. Mhm. sponsor bee ma yitteel. ndeysaan muy CEDEA. Mhm. sànq nag daa ni damaa dégg nga ni lii ñu ki teg tey mooy. chausson la tudd. susi. chausson wax ma chaussure de. ah chausson chausson la tudd. man daal CEDEA jaaxal nañu. waaw mhm. ñoom daal seen lekk bu ne ak tur ba mu àndal. ndeysaan gis nga kon daal bii mooy. chausson bii mooy chausson. chausson waaw. waaw kon yaakaar naa ni tey defati nañ lo baax. bii mooy chausson à la à la à la soso à la crème. waaw ah, kii dafa neex a jënd. ndeysaan waxuma la crème bu ñuy màcc nag. ah jërëjëf waaw mu ngi noonu soso la kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax defati nañ seen manin. Mhm. waaw di nuyu tamit Rijal Couture bu baax a baax. Mhm. di ko bàyyi xel moom bu baax baax. di nuyu nag sa gan. Mhm. muy saltige. wax dëgg fa yàlla comme li nga wax léegi rek nit ñi dañ ko daan dégg ku mel ni man. dégg rek laa daan am ci moom. ci xëy na ay kéemtaan yi mu daan def ay xar baaxam. waaye tey jii boo ko demee jëli ji dëkk bu sori nag foo xamante ni comme ni nga ko waxee nga fekk fa ni ko coppet doo ñet indi fii teg kon yaakaar naa loolu mbégte la mhm. ñu ngi ko ciy sant bu baax di la si sant yow tamit di wax ni daal kon tey Moustapha mhm. man damaa xam sama bopp de mhm. lan laa def nii caay nga def de du caay laa def ndeysaan am na nit ñoo xam ne boo toogee ak ñoom da ngay aar sa bopp waaw caay ji ca sama maam laa ko jëlee mu jox ma ko ni ma demal ca émission ba waaw jimboori ba nga xamee ne da ngaa sol caay man mënoo ma woon wax ma sol caay ma ana sa maam a ah, sama maam ah, man sama maam yi jeex nañ ah jeex man samay maam a ngi dund ñoo ma aar. Ah. am na ñoo xam ne booy toog ak ñoom da ngay aaru. Mhm. ok waaw man day euh, samay maam yi lébu lañ waaye nag man tamit aar naa sama bop euh, saltige ñu ngi lay nuyu. Euh, Moustapha maa fay. Mhm. di nuyu sa ki nga àndal nii muy Jimbori. Mhm. di nuyu képp kuy safoo Maxime Vision. di site bi nga xam ne ñëpp ko bàyyi liggéey bi rafet na macha allah. man nag gëj naa génn sama sama kër yaa ma génne. te li tax ma sa war a génn sax li xew ci réeg mi nar a am ci réew mi ma tax ma génn. Mhm. nañu xam ko mën ci aaru. balaa loolu. Mhm. may nuyu fukki penti yeeg ñaar yëpp. Mhm. di nuyu la jaraaf Youssou Ndoye suñu kilifa di nuyu tamit suñu papa euh, grand seigneur Dakar di nuyu saltige yëpp. di nuyu jaraaf yeeg ndey ji réew yeeg laman yëpp ci réew mi mm-hmm. di wax ni ñëw nañ toog parce que neen wax dina la xew ci lu mu mën doon ci réew mi ci lu ñu xam mm-hmm. ci lu ñu xamoon xamuñu ko waaye ci lu ñu gis muy am te ñu xam ko ne ko wax waaw saltige ci loolu lan moo wutaleeg saltige ak sëriñ saltige mm-hmm. mooy tey bu ñu naan euh, nguur mooy assemblée général sëriñ nag da ngay jàng si xam-xam jàng fu ne di bind di def ñun du ñu bind. Mhm. nañuy lëlu ñu wan ñu gis génn wax moo tax nag bërëbu lébu yi ñu am saltige ak séeréer yi. Mhm. te séeréer ci lébu la jógee. Mhm. moo tax euh, ndey jëréew am saltige am laman am jaraaf am loolu mooy jaraaf mooy mooy président ndey ji réew mooy premier ministre. saltige mooy as président assemblée. laman nag mooy gouvernement bi. Mhm. dañ daan gis bu dëkk bi xawee tollu fenn fi saltige yi lañ daan déglu parce que bu ñu leen daan déglu am na si lu bari lu ñu leen di xaar ci loo xam ne ñu gindi Sénégalais yi ci nga xam ne moo nar a ñëw. waaw ndax saltige xam-xam bii xam ne mën na ci moom yàlla moo ko def ci moom. Mhm. te lu saltige wax teg ko téere. Mhm. jàppali na am loo xamante ni moo koy fànq ci ay sarax. ndax saltige du wax lu mu gisul. lu mu gis moom lay wax waaye dina xam itam lu koy fànq ba du lor du yàq du rey te du def benn jaralu ci réew mi saltige daal mooy kiy defar bëgg mu baax koo koy saltige waaye daal saltige mën nañu wax ni ci lébu yi lañ koy gis ak ci séeréer waaw mhm. ndax séeréer ci lébu la jógee mhm. mais saltige séeréer ak saltige lébu am na toute différence bu dee séeréer yi nu yor xeej boo xam ne moom lañuy samp di wax li aw am ci nawet bi mhm. te bu dee ñun saltige yi dem géej tuuk ci ndox mi déglu ñu wax ñu li am ñu wax ko. Alaaji Mbori. saltige de loolu loolu la ñu indil. saltige de fi mu ne nii moom daf maa tàmbalee tiital. Hmm. waaw tiital na ma trop. waaye nag euh, comme li mu wax léegi dafa am solo mais saltige ñun dañu gis ni Sénégal fi ñu toll nii léegi xàmmewoo ñan ñooy saltige ak ñu dul saltige <laughs> mais Moussa hmm. léegi saltige man man comprendre tuma léegi. Hmm. dañ leen a rax dañoo bari. léeg-léeg da ngay bu nañ leen baar de. moo yow am na si ñoo xamante ni dañuy jekk si ay rek génn ni réew mi lii mooy xew réew mi lee mooy xaw sénégalais dafa gaaw a gëm. Mhm. génn gëm leen xam nga naan leen def leen nii def leen nii jël seen numéro téléphone affiché nit ñi di leen woo ñu leen di dóor di lekk seen xaalis naan leen saraxeel lii defal lii defal lii yow saltige boo jekki-jekkee nga toog ñàkkul ni xanaa yéen saltige yi tax ñu naan saltige xamante ngeen seen biir parce que ñàkkul dina am foo xam fu ngeen fay daje pour man di loolu di waxtaan ci liy xew ci réew mi hmm. boo xëyee xëy rek gis benn jimboori bu génn rek ni saltige la taxaw ci réseaux sociaux yi wax lu ko neex def lu ko neex xam nga ni saraxa leen def ne yow en tant que saltige nan ngay réagir après tam leena ni ku bokkul ci yéen saltige bu bokkul ci ñun da ngay saltige saltige ñun duñ la wax yooyu yaay dem ba gis hmm? yaay dem ba simmi sa bopp sa yére teg ko fële hmm? ndax saltige du ay fo du ay caa ay dono la danga koy don la koy fal saltige nag bu saltige saltigelu gis nañu ñoo xamante ni ñu ngi woon fii di saltige saltigelu ngeen déggati waaw parce que man mbaaw googu nga jóge am naa fa ay mbok hmm. mais am na ay quelque ñoo xamante ni xamoon naa ne fa ñu ne ay saltige la dafa nekkoon naan day saltige saltigelu anamu déggatoo ko gisatoo ko ndax bokk ci da cee raxoon ñu sepp teg ko fële saltige da ngay bokk ci fukki penc yeeg ñaari mm-hmm. saltige ngay doonam lébu pire lébu mm-hmm. baa nga doonam séeréer mm-hmm. kooku moom saltige te saltige du sos saltige du wax lu amul saltige dina an ay di leen war baa muy wax lu amul ñu lekk seen alal waaw saltige am na lu ma dégg sànq de nga ne fi ñu jëm ci kanam am na lu bari lu fay xew yow te gis nga ko lu doy waar ah Sénégal moo ngi jël coupe d'Afrique de du dem <coughs> jimbo Sénégal d'Afrique bii. loolu information de taille la. ma ni waaye xam nga euh, saltige yii dañu ko indi soson yi. ma war nañ ci mën a. nag maa dugal fa am solo. xaaral ñëw. nag maa dugal fa am solo. Mm-hmm. Sénégal. Mm. ki ñuy jox ministre des war koo jël du postom mooy wax Sénégal. Sénégal fan lay fan la jëm dina dem. qualifiant la yem. <laughs> waaw Sénégal quart de finale lay yem. saltige nga maam ah, am am naa bic bind ko. dinaa loolu kay dinaa nii seetaan sax dinañ bind nañ noté nañ. saltige dama dégg léegi nga ne Sénégal quart de finale lay yem nga ne ki ñu jox ministre des sports waruñu ko ko woon a jox loolu da ko gis avant. gis naa bu yàgg. waa léegi pour man sama xalaat ba nga ko gisee. est-ce que am nga ñoo si mën a jokkal pour waxtaan ak ñoom. du ma ci woo ah, xam nañ ma. déet même même buñ la xamee man ci sama xalaat bu gàtt. ma ne ba Sénégal nekk coupe du monde. Hmm. ñu war sarax. VAR boobu ñu ñàkk a di quart bi dama leen woo ñu may négliger. ah mais man saltige man xamal li ma jaaxal fii la yem. VAR bii moo nekk champion d'Afrique ba pare lu man loolu li ma a jaaxal nga ne day toog quart de finale. waaw mooy loolu na ma de. li mu jaaxal la mooy lan. senegal moo fi man de. da ngaa fàtte Sénégal ñaata yoon la dem final toog. na kay final bi mu jël nii coupe bii. man mii bokk na ci xeex loolu. que man mi boo duggee ci net bi mi ngi ci. mais lan moo waral loolu. ay ah yàqkat. ah bon ñoo xam ne ñu ngi ci réew mi di yàqal équipe bi. ngir seen ndombal tànk. Mhm. ngir seen daraja ngir ñu xam leen. coupe d'Afrique bi baax nii jël nañu sëriñ yóbbu ko fii Gorée fay ko 23 millions pour Sénégal toog. te yow ñëwuñu si yow. déedéet. Ah, ah, ah. pour Sénégal toog. pour Sénégal toog. fay ko vingt cinq million yu bu ko gore pour Sénégal bañ bañ jël coupe coupe d'Afrique man ma yëgee loolu man man seetlu jóg naa dugg fi moo dugg def li ma woo def joxe li ma woo joxe coupe bi ñëw. waa mee dégg naa ci ñoo xam ne dañuy nekk ci naan buñ ma buñ ma woowee man mën na mën naa jox Sénégal coupe bi te ñooñu ñooñu bu bu saa ñu demee lajj. waaw mooy mooy li wax sànq rek mooy saltige yi nga xamante ni duñu ay duñu ay yi nga xam ne duñu ay sëriñ bëgg am bës bëgg am xaalis mais ñu xam duñu wax nan pattaf fuñ toog di xaar ñu wala alaaj Jimbori yow sëriñ mën na mos na laa nax wala saltige euh, Moustapha man <coughs> saltige fi mu ne nii dafa wax lu ma jaaxal mm-hmm. parce que bu dañoo jëm coupe d'Afrique bientôt mm. Sénégal doon champion d'Afrique jël coupe te bëri nañu génnoon ni Sénégal du dem quart de finale Sénégal du génn yàlla def ñu boole coupe yëpp jël ko saltige taxaw fii ni quart de finale la ñuy yem coupe d'Afrique bi ñu jëm loolu lu jar seet taxaw seetlu la waaye na ma ni dafa am sarax waaw léegi sarax boobu nag saltige pour man yow mi nga xamante ni ci réew mi nga dëkk yàlla may la xam-xam nga xam ni boo looloo di nga gis lu bëri di nga xam lu bëri est-ce que sarax boobu jotul yow ton ko mënoo jotee ci nit ñi pour ñu def ko est-ce jotul yow nga def sarax boobu pour sauver Sénégal nañ ma woo téléphone 77 011 68 24 nañ ma woo téléphone loolu loolu du waxu bu ñu la woowee téléphone. moo wax leen sarax bi def ko Sénégal jàkku Afrique. waaw mais dama ne saltige dafa am lu ma jaaxal man senegal lan moo tax soxorante bi nekk si Sénégal depuis ba Sénégal waroon na jël coupe d'Afrique bu yàgg. mais lan moo tax soxorante boobu ak iñaanante boobu nekk suñu diggante. man la. yow du yow am Sénégal du man la rek a am sëriñ saa ngi liggéey seen biir jogu na am sëriñam joori ku ne daa am sëriñam bu koy liggéeye nee na ñooñu seen ñooñu biir ñooy liggéey seen biir di seen biir. ba si ay sàccante ay daal. maa wax loolu. ba ci ngay nelaw sax ñu fekk la ngay nelaw ñu wis la sa ba benn sunguf. ah pour masse bi doo ci bokk. loolu yëpp xew na mi ngi fi. Euh, xam nga nu ñuy def Djimbory dañuy dem zapping. man de man hmm? ñu seetaan après ñu wàcc plateau bi. eggale émission bi. ak saltige man de saltige fi mu ne nii dafa mel ni man de fi mu ne nii li mu wax damaa yéem. man li ma wax. ah man wet li ma wax. ah de wax dëgg fa yàlla weddiwu ma nag waaye saltige ah! lii de ku ma ko mos laalal ku ne di nga am lu sa yaram. wuy ma waaw waaw d' accord. man nañ dem zapping ba pare. nañ dem zapping ñëwaat après ñu ñu xool bi lu mu jot. dire au moment final où tu dois véritablement faire la conclusion parce que également il faut que tu aies une finition lorsque tu t'apprêtes à dire mbassa mbassa et le danseur va te dire mets-le ici mimi mimi xaañ ma voilà pourquoi ici ah gis nga de Alaaji Jimbori zapping bi ñu leen indil tey euh, li ñu leen indil mooy li nga xam ni aussi euh, ay xeetu ay xeetu pecc la pecc yoo xam ni eh, nit ñi seen i cër day feeñ lu mel ni suus gis nañ ko fi gis nañ ci aussi yeneen façon fecc waaye man fecc bi ma ci gën a bi ma ci gën a neex euh, mooy yi nga xam ne mooy cosaanug lébu nga xam ne ñoom dañuy jël ñaar ba ñetti wala ñeenti sër sol ko te seen du feeñ te loolu zapping bi loolu aussi neex na ma ci beneen bi ma ci gën a marqué aussi mooy professeur bi nga xam ne dafa nekk ci biir classe bi di jàngale waaye aussi mais moo nga moo ngay feccaale loolu te c'est c'est un prof de philo waaye ci fecc boobu moo ngay jàngale alaaji professeur professeur yow Moustapha professeur bi day jàngale wala day feccal élèves yi wala lan lay def. xam nga professeur de philo yi nag dañoo bari ay pem. waaw mais mais kii moom day jàngal xale yi ni ñuy feccee. déedéet parce que bu demee ba naan arawatam mbii mi xati xargaay. Hmm. ay saada di ko mbasa mbasa taj temps mais élèves yi sax ñu ngi ree yow ban école nga mujjee professeur bu jàpp élèves yi di leen jàngal fecc nii. xam nga lu tax xam nga professeur bi la tax moo tax muy def lool xam nga élève dafa am. crispation day am ci élèves yi parce que déjà pour élèves mën a comprendre moom li muy wax il faut mu ñëw ci environnement boobu. mais moom xanaa fecckat la. déedéet du fecckat xam nga ah. xam nga prof de philo yi dañu nekk ñoo xam ne parce que environnement bi ñu nekk dañuy bëgg a téye ñëpp dañuy bëgg a jàpp ñëpp xam nga tax parce que arwatam mbir mi xaar ma ci ay ay arwatam nag nangam nangam ci nga ci côté boobu moo tax élèves yi di comprendre bi te boo seetee ci cours bi moom ba mu paree. élèves yi reetaan nañ mais ils ont compris mais léegi moom. Hmm. est-ce que jëlee wuñ ko ci sabarkat yi ñiy fecci. ñëw parce que lii muy def nii professeur mënu ko mhm. lii ku yàgg a dugg fecc ndaw rabbi nag yooyu ak arwata mbii mi xatakaay yaa ko mën moo tax mu décorté ko nii mu ko décorté mais xam nga lu tax euh, euh, philosophie dañu nekk ñoo xam ni ci environnement bi ñu nekk dañuy adapté parce que xale boo ko bëggee jàngal da ah, li li ko wër il faut que loolu aussi nga koy mettre en place ci seen kanam ñoom ñoom ñu koy gis euh, saltige loo wax ci ci ci ci zapping bi pecc jàngale la mhm. ndax prof di woon xale yi ni leçon bi muy jàngale. Hmm. parce que mi ngi tëgg-tëgg bi ci gémminam mais mi ngi leen woon tëgg bi fecc bi nii la ça veut dire que leçon bu jàngal mooy lépp loo war a bind ci leçon bind ko ak ak euh, règle yi leçon bi àndal moo tax fecc bi ànd ak wax ji ak geste boobu jàngale la hmm. mais man fi ma d'accord rek mooy moo na ko feccee neneen sol caaya kon caaya ji moo moo gën a moo jàngale hmm. ok loolu laa gis mais ndawra bi ma gis nag loolu mooy cosaan euh, ci am na beneen feetu xeec gis nañ xale yi di def suus mhm. di def beneen xeetu fecc boo xam ne tegginuwul jàngalewul mhm. gis nañ aussi cosaanu lebu nga xam ne wax la wax dëgg yàlla colin bi dafa rafet ñaari xeetu fecc yooyu eh, Moustapha Moustapha bàyyil toog ak saltige di wax ay suus mhm. lan mooy suus Moustapha maa ngi jéggul ah ke xeetu fecc la de waaw mais suus boo too kii daa ñii ay saltige kii xamul luy suus kii boo ne ko suus boobu moom bu ci dugg. dëgg la bu ci dugg ak moom de. Hmm. ah nga ndaw rabbi. fecc hmm. moo xale bu di fecc. te yéem di feeñ. Hmm. li ko waral mooy ba jamonoy baax. fecc da ngay sol ñetti sër ba ñeenti sër. te fecc suuf mais kii xale yi fecc nii fecc bu ñàkk teggin la. amul worma amul yar amul teggin mais boo xoolee ndaw rabbi da ngay tegle ñeenti sër. doo tiisar ba loxo rek ngay feccee li ci am solo mooy ñay tëgg sabar ga ñuy tëggee réew mi la jógee sa bant bi dimb la fii lañ koy bàyyee fii lañ koy garab gi fii lañ koy daggee bant yi nekk ci côté peeg yi niim la garab la bant buy tëggee sumb la garab la fii Sénégal nekk der ba nga fa deru béy la diwti nga def ci biir tëgg sabar gi mu jox la son bu ndaw rabbin gis nga ndaw rabbin du ay caaxaan na gumbe naan gumbe leen gumbe fi xew na ñuy doore ndaw maam yàlla. yaa wàccee ngir ñu musu seetaane ndeysaan kon loolu bu nga def ci ay nawet lañ ko def wax xale jigéen ñi wax leen seen cosaan wax leen fi ñu bokk wax leen seen xeet ak seen valeur ñoom lébu moo tax ñu ngi créé ndaw rab bi def ci koñ yi ay ñeenti fan lay am wala juróom fan lay am chaque jour ak koo koy mu ñëw délégation ñu wéyal say maam. taggale say ma xamal ne diwee sa maam diwee sa maam diwee sa maam eh, Jimbori man xam naa ne euh, saltige kilifa la waaye saltige xam nga dañu nekk saltige yoo xam ne dañoo xam li xew ci dëkk bi mm-hmm. mais saltige bi nante la mais tey bu ma lay wax waxi suus mais bu la ma saltige bi waroo ko wax suus parce que yow da ngay seetaan suus dama koy fecci sax da ngay fecci suus waaw mais waaw man li ma ci fekk kon bu ma wax loolu waaw d'accord li ma ci fekk est-ce na ko ci déedéet waaw suus moom lekk la wala lan la suus a ab xeetu pecc la de suuf daal saltige hmm. am feet xeetu fettaloo goo xamante ni foo ko natt ci ñàkk yiw di rek ma nga fa man de li nga xam ci suus mooy hmm. inde bi suus na inde bi suus na <laughs> laa xam ci suus ah Jimbori yow yaw est-ce que mën nga ñu may suus waaw waaw Moustapha hmm. xam nga émission bi dañu baaxoo deuxième partie bu ne ñu bëri dañ ma koy réclamer nag parce que nee nañ seeni message dama ko tontu dëgg la waaw kon bala may xuus foofu ñu ñëw ci message yi saltige fii dañoo baaxoo deuxième partie bi dafa am question yoo xamante ni internet yi seetaan ñoom ñoo ñu koy posé ñu jox la ko. ak hmm. yar ak teggin nag. waaye kii posé question bi waxul turam mais nee na bari na ci saltige yoo xamante ni lépp lu ñuy wax na dara du ci dëgg te ñoom seen biir sax juboowuñ ba mën a xam li xew tey ak liy xew suba looy tontu loolu. kooku wax loolu foofu la xelam tool <laughs> waaye ku xam saltige moom mi wax loolu. su weddee lii may wax na ma woo téléphone téléphone kese la may woo ma wax ko ay maamam waaw saltige foofu fi may ñëw hmm. pourquoi pas yéen lu ñu wax benn ñaar ñett rek ngeen ni na ma woo téléphone te li mu wax nii man dama koy dëggal hmm. parce que yéen dañu seetlu ni juboo woo leen seen biir parce que yow taxaw nga fii léegi nee nga Sénégal du génn quart de finale am na sëriñ yoo xamante ni ñi ngi jàpp jour yi naan leen jox ma temps ak temps ma def la nangam ak nangam diw du diw du paas wala balaa match ba diw feebar mhm. yéen lan moo tax bu fekkee yéen saltige yëpp wala yéen sëriñ sépp gis ngeen loolu ñu di ñëw ci Sénégal pourquoi pas ngeen juboo booloo doon benn woote def coalition ni lii kat comme ñun doomi réew mi lañ ci réew mi lañ nekk juddoo fi yoroo fi màggee gis ne ni lii mi ngi fànqal équipe nationale wala mi ngi fànqal réew mi kaay leen boole suñu dërëm ak suñu Dakar ba du ñëw ci réew mi xam yi bokkul xam-xami bokkul. saa yaay tàngal nga nag saltige. xam-xam suuf. moo ne xam ko xolal. xam-xamu ndox. xam-xamu sunguf. xaaral ma xam-xamu béjjén. xaaral ma seetlu bu ñuul dafa am. ah Idda. boo leen boolee daanu. tàng na de ko saltige tàng na de dama ni. alxuraan du xaj bopp xaj. xam-xam bu ñuul doo ko boole alxuraan petaaw doo ko boole alxuraan ñu saltige ndox la ñu xam. saa tàngal nga saa xam dugub la ñu xam géej la ñu xam sëriñ bi yor euh, di bind loolu la xam. saltige yëpp petaaw di bind loolu la xam. kii jël la xaj liggéey ci nit ngir yàq nit loolu xam ah, am am jimboori teel mun ñoo ànd teel jimboori teel rek mun ñoo ànd allahu akbar te du ñu ànd mukk saltige saltige am saltige am jëlal lii ma jox la ko waaye nag dañ ciy teg leneen loo xam ni waa waa CDA ñoo ñu ko indil ngi defar ngir yàq nit ay waay waay waay jimboori jimboori ak kii defar ngir soqal nit tooñ nga ma de ak kii defar ngir defar réew bokkul yow nga ci man naa ngi defar réew mi. yow mii maa ngi dimbali réew mi. man gawuma la gawuma maa ngi soqal réew mi. Djimbory su ma bonoon su ma yàq taxoon jóg su ma yàq taxoon jóg ma toog sama kër Sénégal toog quart de finale. waaye mais mais yow Djimbory mën naa man mën naa indi saltige nga naan ko ay gawuma la. li may wax du samay wax de li internet yi di wax moom laa ko répété nii pour wax ko question mais du loo xamante ni man maa ko wax te ñun kat internet yi ñooñu fi tax a toog question bu ñu posé dama ko koy wax moom. ci niñ ko posé loolu. lu la lu la saltige def nag xoolal ci émission bi na ko na gis nga ko ni ak bunkam mi wax naa la lu leer yow yaay taxaw fii di contredire saltige mu ngi noonu nag man moom xaaral ma xool nu may def yow moom moom saay. saltige ah. tàng na de. Moustapha ah. allahu akbar gis ni Moustapha nga man li ma laaj du question boo xam ne man maa ko laaj. a ah. yaa ngi dégg internet yi ñoom ñoo posé question laaj. man ma to ma ma laaj bi. ma ne yaa eh, yaa wax de. déedéet déglu ma rek émission bi nii la baaxoo. Ah. yow chaque jour deuxième partie dañuy poser question ñu laaj. waaw li ma ko laaj du loo xam ne man yabu ma ko yab boo xamante ne dina toog ma koy manqué de respect wala ma koy wax naka dul noonu mais lu ñu laaj am naa droit ko diw moo laaj léegi ki laaj moo bindul turam mais bu bindoon turam ma ne ko diw ak diw ñoo ko laaj. léegi da nga maa laaj. laaju mu la dañ la laaj ma jotali laaj. la kooku ne ko kooku ne ko ndax mën naa boole sàngara ak wax ko loolu. léegi kii liggéey sàngara nax mu ndax boole alxuraan. xam-xam xam-xam la wax de. Moussa eh, kii liggéeyee sunguf ndax mu nga boole alxuraan kii liggéeyee pettaaw ndax mu nga ko booleeg téere. maanaam nga naan sa ataaya ji moo gën. man day boo ma indi benn problème fii. mënagu ma naan de. ku xamul na ngay noppi. ku xamul da ngay noppi eh ku xamul day noppi saltige tàng la ilaha illallah saltige naana euh, lii nag CD CDA ñoo ko indi muy soson ah, man man mën nga barkeelu jumboori waaw jumboori bul bul tiit yow saltige dafa wax lu mu sentir rek jërëjëf naana ataaya bi naana naana jumboori Euh, saltige euh, man dama la bëggoon laaj ci yi ñu jëm kan moo kan mooy nekk président. jërëjëf dina bett ñëpp. Hmm? kii falu. Hmm? dina bett ñëpp. 2024 kenn sóoraale ko. ah il ko. élection yii di ñëw yii di ñëw. kenn xaaru ko. ah kon kuy falu. kuy falu kay lañ bëgg xam. ma ni kenn xaaru ko. saltige waaw ma ne ñu ne. kenn boole ko ci liste bi nekkul pouvoir. nekkul ci liste bi nekkul pouvoir. pouvoir day daanu. maanaam kooku mooy nekk président bi. <laughs> Amadou Ba Sénégal la ngay bëgg a neex Amadou Ba man. nee na ku nekk ci pouvoir bi. ah ku nekk pouvoir ah. ah ku ne pouvoir. déggoo lu mu wax nee na kii nga ne nekku ci benn liste mooy nekk président de la république. kenn sóoru ko kenn sóoru ko. am na partem lancé na partem mi ngi def campagne am. opposition la wala. du bokk sa moom doo ngay <laughs> ñu bari nag. Euh, lamb ji lamb ji Ama Baldé ak euh, ak Lac de Guiers. daan na bu yàgg. ku daan Lac de la Ama Baldé. ak Lac de laa ko wax. déedéet Siteu Lac de ñoo daje. Ama non non ak Lac de laa ko wax. waaw daan na laa wax. kat appui. kan afi <laughs> euh, euh, euh, Ama Balde kii nag Ama Balde nu mu tuddati Ama Balde ak Modou Lo. le roi des arènes ay révélation yoo xam ne yu bees saltige loo xam ne saltige ñu koy indil. saltige. Modou Lo arbitre. est-ce que. Siteu daan na la de guerre par quatre arbitre. ah ah mais saltige loolu moom loolu loo gis la wala luñ la luñ la wan la. Eumeu Sène Tapha Tine. Hmm. njaax la. njaax mas ñu lay ne. jël amu ah man de dama daan dégg ñu naan ma élection yi 2024 yi sax jigéen jigéen moo nar a nekk président mais comme da nga ne ma ki nga xam ne opposant mais góor la wala jigéen ki war a nekk góor la góor la kon jigéen dañuy xaar. Moustapha man affaire bi mujjee na maa dépassé daal. Hmm. waaw comme li ma wax léegi rek bu ñu demee ba saltige toog fii. Hmm. wax du suñuy hmm. wax nag ay waxam la hmm. moom saltigi nee na kii doon président Sénégal 2024 bokkul parti pouvoir nekkul opposition loolu la wax moom donga na boppam moom dongay demal boppam kon candidat yi ah saltige wax de du suñuy wax bi ci des nee na Modou Lo Ama Baldé nee na Modou Lo day daanu waxi saltige la décision arbitre Siteu Lac de Guiers. Lac de Guiers day daan kat appui. nee na day daanu kat <laughs> appui. tey dégg naa euh, nga ne. niil la njaax. masi niil. masi niil lay bi. niil lay nekk. masi niil. loolu waxi saltige la de en tout cas daal sénégalais yi ñu ngi fi. waaye. Hmm? lu si nekk mën nañu ko tourner. lu koy lu koy lu koy lu koy tourner. man. ak lan sarax. si ma ñu seet si la. kay carte gi changé. lépp changé ba ci Sénégal ba ci amul ba bëggee falu ma lay woo. ay waay. APR A bi. Hmm. A bi. A bi waaw am lu muy tekki. A bi doole bi am lu muy wax. Uh-huh. R bi am lu muy wax. su ma ko boolee man. Hmm. dañ may jox làkkum. làkkum boobu nag. Uh-huh. laa mën làkk engrais mën mën a nekk APR Sénégal. mais bu ñëwul si yow làkkatu. du ko nekkaat du ko nekk. ok léegi fi mu bëgg a ñëw hmm? xam nga mënuñu dugg ci politique ba génn te waxuñu ci actualité comme fi nga dugg Ousmane Sonko ndax gis nga ko mu bokk ci dina bokk ci candidat yi waaw am déet Ousmane Sonko du ma wax ay mbiram ndax lan maa ay bagaasam daa di dafa lëndëm ay mbiram dafa lëndëm lool waaye nag lan mooy tax lan moo koy dindi ah, en tant que saltige ay mbokkam ay mbokkam Diop Diop mais ay mbokkam est-ce que jóg dina yomb parce que ay mbokkam ñu ci bëri buñ jógee gis nga li leen ciy fekk. il faut ay mbokkam jóg. Hmm? il faut ay mbokkam jóg. Hmm. il faut ay mbokkam jóg. waaw. Hmm. ay mbokkam ci nan la ñuy jógee saltige. balaa loolu. fekk fan yi néew. ab kilifa na fa jógee. lan. mais gaa ngi dem de. kilifa diine wala kilifa aar ak kilifa cosaan wala fi jógee. saltige waxati na de. kilifa ko am tur nag. ah Idda Xaydullah. ñu fi jóge. Euh, tey saltige boo gisee Sénégal ak euh, depuis 1960 fi mu tolloon ak li fi xew yëpp ak li fi jaar sénégalais yi nag ñoo ngi jooy ci li nga xam ne mooy yokkute beeg ak nangam nangam ak ndaw yi nga xam ne ñoo ngi jël gaar gi est-ce que loolu lan nga ci lan nga ci gis Sénégal ak fu ñu jëm nii ci kanam tuuti loo ci gis. gaal yi ñuy jël waxoon naa ci. Hmm. du ma ci waxaat joxoon na ab lim bakkan yi woon si gaal gi. desul wala jeex na. jeex na gaal yi suñ ko bàyyiwulee yi na amaat na lool ci xale yi. mais dégg naa beneen xeetu feebar nee nañ nee nañ nee nañ nee nañ day waaj a ñëw de. comme lu mel ni corona. déggoon naa ko fi de. corona musu am. maanaam dil la woon. corona musu am. Jimbor yaa ngi dégg. man Moustapha man fi mu ne nii wax dëgg fa yàlla affaire yi daf maa dépassé daal tey boo ma xoolee sax nga xam ne tey moom wax dëgg fa yàlla man parce que xaw ma yii daal parce que man li mu wax léegi wax dëgg fa yàlla dafa ub sama bop maanaam gëmoo ko daal waaw man non dama la laaj yow gëm nga salte nga wala gëmoo ko Moustapha man de wax dëgg fa yàlla bu toogee ni fan yii di ñëw kilifa gu mag dina dina génn àdduna hmm. xam nga après man man doo doo xamante lan la quoi ak li mu fiy wax lépp xam nga après man may ragal ëllëg ak euh, jaraaf bi mu doon nga xamante ni wax dëgg fa yàlla bëri na li muy wax loo xamante ni nit ñaa ngi koy bàyyi xel tey jii li mu wax ne alors que bu fekkee na dara amu ci wala ëllëg ñu vaar ko ak moom personnalité am ak dignité am ak euh, confiance bi ko Sénégalais yi di joxoon après nan la ko waaw waaw sa bopp yow ndax ay sa dara wàññeekul ci yow dama ne la bind ko dinaa rës kay parce que kii man saltige wax dëgg fa yàlla. waaw xoolal sa bopp yow réseau. dépassé na ma trop fi mu ne nii ah? bi sa lépp normal na mu ne saltige garab gi ko moo ko wàccee wala. gi. Ah. ku ko fa jëmbat. ah loolu nag moom dese na maa wóor nag. sa jamonoy maam la. kër jàmbur la de. waaw garab gi kër jàmbur la. Mbaa du daa am ay ay ay gars yu fi dëkk. kër jàmbur la garab gi. <laughs> man day may saa yu plateau bi baatu ñu. ko du loolu de yow yaa ko def. sëñ bi ah. waaw def de bi nit ñi di invité nit ñi nga nekk léegi daal man xamal la Moustapha man yàlla daa def. man xoolal oui ba Moustapha xaara rek xaara. ma man am na loo xam ne xajuma ci. déedéet waaw bu tuddee déedéet déedéet xaara xaara xaara Moustapha dimbali man maa la ko ñaan mënuma ko am na loo xam ne xajuma ci quoi. parce que tamit. waaw waaw waaw bàyyi micro bi. émission rek moo ñu boole bu fekkee dañoo nar a dem nag ba xam ne man man man quitté plateau bi quoi. Ah. parce que tamit am na yoo xamante du ma jaru daal ma bàyyi la ak sa invité am na yoo xam ne euh, de la chaîne Max Vision ñoo ngi leen di bëgg di leen kontaanee di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni partagé leen émission bi like leen ko commenté leen euh, tey loolu leen indi indi émission waxtaan euh, ànd seeg équipe technique bi nga xam ni ci caméra bi. Moustapha euh, sama sama Thomas euh, euh, ki nga xam ne mooy njaga aussi si caméra bi dans la réalisation Alaaji Soumaré donc di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay balaa ñuy tëj rek sant gi looy tëjee comme sama waa ji daw na. li may tëjee mooy Sénégal yi yàlla fa jàll dafa jàmm. amiin waaye jàmm lañ koy sakku hmm. ku bëgg am jàmm yaay sàkku nag du sàkku jàmm. turu jàmm ci gémmiñ ko doyul. Hmm. dañ jëfe ko dox ko wax ko moo tax nga lii moo fi lépp nag mhm. na ko ñëpp bind na ko ñëpp bind Sénégal su bëggee dem final hmm. non ministre des sports woo téléphone ma jox ko ñaari tegtal yu ndaw Sénégal dem final donc Sénégal yàlla dem final Euh, jëlaat coupe bi une deuxième fois donc euh, téléspectateurs yi ñu ngi leen di bëggee di leen kontaanee kooku moom doon saltige bu mbaaw. yéen tamit seen site bii. Mhm. faaw nga saraxe ñaari bëy. ñaari bëy. waaw loolu dinaa ko wax dinaa ko wax bi. bëy bu sokola ak mhm. bëy bu weex. bëy bu chocolat bu weex neex na neex naa wut. donc ak tàndarma ak tàndarma ñaari kilo tàndarma. ñaari kilo tàndarma amul leneen. nga jënd soo ak dugub. Mhm. yóbbu géej. yóbbu géej ah donc saltige ko wax donc Max Vision ca kaw ca kanam. loolu bu ñu ko defee rek tàkk jëppee rek kenn leen tey macha allah kenn du ñu tey euh, voilà chers téléspectateurs loolu la ñuy indi loon si seen émission waxtaan ci beneen numéro merci beaucoup jërëjëf